politique bi dina ci mel ni Idrissa Seck. Mhm. dee na ci acca et pourtant euh, man euh, ndaak li ma si doon sànni rek mooy euh, mhm. nit la ka nga xamante ni estimation bi nit ñi amoon si moom dafa bari mais xam nga constance dafa baax ci loo gis constance da cee baax et que moom moo ko fi waxoon démb rek gis naa benn chaîne bu ko tegaat en direct replay ay waxam maanaam xam naa loolu dañ ko doon fàttali rek ne ko lii yaa ko fi mhm. waxoon te as nag boo xasee ba wax la war mooy nga sàmmantoo ak sa kàddu parce que euh, moom moo fi waxoon ne man Déthié Fall du ma war doomu aadama du ma ànd ak koy war situation bu mu mënti doon nag man du ma war loolu ay waxam la du samay wax et que vraiment euh, ñëpp dañu ko estimer woon Sénégal ñëpp dañu ko bëggoon koo wax Déthié Fall mu ne la Déthié li ma neex si moom mooy dafa jàpp njàmburam dafa yaru ba pare il est véridique mais tey jii euh, il il s'est ay noon la créel boppam en fait bésu tey jii nag la ko waral du affaire de partisan wala dañoo far fii wala dañoo far faa mais nit nit nit bu normal rek bu gisee ni mu cheminé woo hmm. bu gisee ni mu jaar hmm. boobu ba tey ak waa sàmm sa kàddu euh, man li ma gën a métti mooy contexte bi contexte bi man moom ma metti parce que waa sàmm sa kàddu fi mu toll nii mais ñu ngi ay jafe-jafe vraiment gis nañu kii di ngi Gueye prison mi ngi nekk prison ñi nga xam ne ñëpp tey jii ñun de ci Fall gisoon nañ ko fi euh, pré bi nga xamante ne Ousmane Sonko mi ngi nekkoon ci ay jafe-jafe moment yi mu ànd ak moom mais ñun nekkandoo nañ euh, procès euh, ki nga xamante ne procès bi cour suprême fële bougan si ki Ousmane Sonko bi koy atte ak Mambay mais on était ensemble jusqu'à une heure du matin mais je l'ai vu ma ne man xam nga lu ma neex si Déthié Fall il est déterminé mais tey jii nii jugement boobu nit ñi doon ko jox yàq na ko pour vous mm. dire vrai rek yàq na jugement boobu parce que euh, ak ak lu mënti nek ci moment na and ak constance bi mu andalon dem sam sa kàddu ñu bari nenañ nañ mom moom mom mo tour tur ci mom exactement ci gi mom la joggé ñu bari mm-hmm. nenañ tour tur bi ci mom la joggé donc mom nit kuy sàmm kàddoom la ko ñep xamé won mais tay ji je sais pas amna ñu naan dañ ko dig poste ministériel ñu on sait pas dañ ko for rek ci mbéd mi nit ñang koy buñ ko falé tamit DG wala poste ministériel ñaari weer la fay am ñu balé yëpp ak lu mënti dom rek ak lu mënti doon rek li mu woote woon li mu won munoon nako wuyo xam nga moy lan intérêt wu Sénégal bi mu ne moo ñor mom mhm. la waron top ba nga xamanteni gis nga ni da ngay am cohérence mhm. am constance mom mhm. mo taxaw barki dembo ndjay mu ne ñii fi nek duñ sam sen cadre ñi fi nekk doyatuñu ma andon nak ñom dem and ak ñeneen mais pourquoi pas mu rester constant sam sa cadre gi mu andal mais mu and ak ñom mais je sais pas xawma ragal la xaw ma lan la parce que gis naa ci li nga xamante ni kenn ku bokk si moom mu posté ko léegi euh, nee na dafa wax ni dafa daal di désisté wu ci coalition bi nga xam ne mooy sàmm sa kàddu. Mhm. daal di dem engagé wu auprès de ànd ak peuple bi au auprès de Pastef kon dafa jàpp ne xëy na Pastef moo ëpp popularité te mooy gagné peut-être loolu mën na bokk ci raison yi tax mu désisté. fële mais ak lu ci mën am